ñoom seen biir moo wax leen affaire ñun on avait deux problèmes nous avons. non soo waxee ñoom seen biir dafa mel ni yéen bokk leen si yéen yéen ngi si. non ñun ah non j'ai quitté wu ma si bu yàgg tout récemment lañ si quitté. récemment mais bi ngay quitté bi may bi may bi may quitté non man Ousmane Ousmane génnee groupe. Lamine Mamadou Lamine Thiam dëgg man maa toog ne Ousmane Sonko dictateur nga lii ngay def di génne ni ñi indi coow ma ne ko waroo génne mu tontu. deuxièmement ma ne ko Khalifa Ababacar Sall dafa jaay suñu liste parce que dafa doon def Mithio Mbalo ak Ousmane Sonko dem seddoo liste bi def ko à trois ce qui se reflète à l'Assemblée nationale c'est pas du tout du ànd gor te ñoo doon toog naan ànd gor la ànd nawle la parce que ñun ñëpp a doon cotiser ñun ñëpp dem si àll bi j'ai fait les les quarante six départements ñu def le tour du Sénégal j'étais membre de la commission des opérations électorales en tant que président de la commission de veille et collecte des troisièmement que man ma man vice président la commission troisième moo tax benn affaire ñun dañ ne méthode Macky Sall bi nous ne sommes pas je vous dis je vous dis nous ne sommes pas avec Macky Sall les méthodes de Macky Sall dafa war a jeex séché en tout cas non non non non non xam nga damay éclairer ma ne la ce qui se passe à Yewwi yàgg na reflété wu Yewwi dafa am leen dafa taqali ñëpp mooy une fois que législative yi jeex ku nekk mën nga dem nekk kandaa ñun nag on avait proposé benn loolu lañ doon bañ biir Yewwi bi ñu si nekkee moi je suis parmi ki doon wax ni nañ xoolaat question boobu Yewwi am candidat yu bari mën na am soit ñu jéem a xool candidat consensuel wala deux sinon Yewwi dina indi ay problème parce que day doon ay guerre personnalité ñu ne kenn du ko fi waxee ñu ne leen question de Yewwi nan nan discuter ci question programme économique social ñu ne kenn du ko fi waxee ñun ñu génn di ko dénoncer bokkoon naa ñu daan dem si plateau yi di ko wax